di leen leeral tuuti aussi ci centre yi nga xam ne secondaire état civil la tudd centre secondaire état civil yi nga xam ne dañu ko ubbi fii ci Touba ndax ku nekk gis naa li ñu doon daj ak li population bi doon daj ci bu ñu bëggee aw kayit woo xam ne dafa jëm ci état civil moo xam kayitu juddu la moo xam certificat de mariage la moo xam certificat de décès la yépp dafa amoon dafa xat ndax dëkk bi lu war a am fukk ak nang juróom-ñaar bu fekkee benn la am benn boobu bu ca ñëpp dem dana indi jafe-jafe ba tax na ku ne gis na bu màggal ak Touba jàllee nga xam ne nit ñëpp dañuy màggal si da ngay gis bis dañuy xëy am juróom-ñaari téeméeri damaan yoo xam ne par jour loolu leen daan am jëm juróom am na bis yoo xam ne sax dem nañ ba 800 damaan ci benn bis loolu nag ci lañu xalaate ne ah dëkk bi war nañ cee def ay pexe jéem ci ba nga xam ne nit ñi buñ ko soxlaatee dana dana 800 moom defarandoo ko yombul waaye buñ ko tasee ci gox yi fenn fu ci nekk dara ne fa yaakaar naa ne dana gën a jàppandi ci nit ñi ak dana gën a gàttal yoon yi ndax jóge Touba Belel dem ba ca mairie ba xaw na gudd jóge Touba ba ñëw ba ci mairie bi xaw na gudd waaye ku jóge Touba Belel boo ñëwee fii yem ci pencam Daaru Xuddoos dana la wàññil ci temps dana la wàññil ci ab coono ku jógee Touba bëgg boo jëmee yem mbindi dana la wàññil ab coono ku jógee Mboxatul Mubaarak au lieu nga ñëw ba fii wala nga dem ba ca meere ba nga yem foofa wala nga yem saam waa wala Touba mosquée dafa naa ne loolu dana wàññil nit ñi coono bi loolu moo tax ñu doon ci dox dox nañ ci nag lu man ñetti at ñeenti at maanaam ngir di wut loolu ndax dafa doonul ne rek maire bi moo koy bëgg yéene ko def ko réew mi dafa am ay texte ak loi ak décret ci lay dox loolu moo tax da nga koy bëgg ànd ko ak président tribunal bi nga xam ne moo ñu yilif ci département bi lépp luy état civil waaye ànd ko ak direction état civil bi nga xam ne moo ñoo nekk direction bi ngi ñu ànd ko di ko dox looloo tax may remercier bu baax a baax la président tribunal bi ndax su collaboration bi mu am ak ñun rafet na lool jàpp na ci lool jàmbaar la ci lool di ñu ci gunge ba tax tey ñu réussir lii te ni ñu taxawale centre yi nag dafa dafa dafay loo xam ne lu mat bàyyi xel la ndax dana dimbale nit ñi ci ak jàppandal waaye biñ koy def dañ koo teg ci yoon woo xam ne yoon wu wér-wér la woo xam ne nit du fi am jafe-jafe ay erreur du ci am problème du ci am loolu rek lañ bëggoon moo tax centre bu ne ñu defal ko mu autonome ndax ku nekk xam na ne Touba ñu centre état civil bi su préfecture la nekkoon bi acte trois bi ñëwee lañ ko doore yóbbu ci maire yi maire bi yoruloon responsabilité centre état civil bi bi biñ ko acte trois bi ñëwee nag ñu ko joxee bi muy nekk arrondissement mi ngi nekk deux cent vingt-deux bi mu nekkee maire mi ngi nekk deux cent vingt-huit numéro bi mais fii ñu toll Touba mu nekkoon ñaari numéro léegi 232 la woon à euh, sous-préfecture 238 la woon bi mu nekkee mairie waaye dañ cee tegaat juróomi centre nag juróomi centre yooyu benn bu ci nekk dafay am numéro kon Touba benn sax numéro la woon jóge na ci bi ñu defee acte bi muy ñaar tey bi si nekk tey dafa nekk juróom-ñaari numéro juróom-ñaari nag mooy juróom mooy juróom-ñaari centre yi fi nekk ndax bi ñu ko jëlee arrondissement indi ko maire yi numéro ba dafay nekk ndax 1970 bi mu sasoo ba 2008 bi muy ñëw maire yi mboolem ñi fi judd wala ñi fi déclaré wala ñi fi am carte bu ñi leen di seet dañ leen di seet ci 232. loolu moo tax numéro boobu même donte tuxu na foofu du mën a sensé dañ koy bàyyi di ko di ànd ak moom ak di ci liggéey juróom yi nga xam ne nag. ñoom la ñuy def benn bu ci nekk dafa am numéro comme ni arrondissement amee numéro ni maire amee numéro centre bu nekk dafa am numéro loolu. boo xoolee ci kayit yi moo tax ma doon def yitte lool ci waxtaan ak président tribunal ba bu nit ñi buñ la joxee aw kayit doo nga xam ban centre la ndax bu dee Daaru Xuddoos dañ cee bind Daaru Xuddoos bind ci référence su Daaru Xuddoos bu dee. Touba mosquée dañ cee bind Touba mosquée ku xool kayit bi xam ne lii Touba moske la day am euh, kotam numéro bu dee ndindi kasaalika naka noonu bu dee saam kasaalika naka noonu bu dee bokkatul mubaarak kasaalika naka noonu mboolem nag centre yi centre bu nekk fa ca fa ca bootu nga xam ne quartier la wilaas la lépp bind nañ fi nga xam ne boo fa jógee ci centre bii nga war a amee kayitu juddu fi nga war a amee euh, certificat de mariage fi nga war a amee certificat de décès loolu moo tax ñu farataaloon lool leeral ko chef du village yi bañ man ko ba xam lépp ni mu demee ba maîtriser ko ñoom it ñu waxtaan ci ak délégué de quartier yi ba kenn ku ci nekk sa délégué de quartier rek mën na laa indiquer ci boo soxlaa kayit bi fii nga koy amee ñu impliqué leen ci aussi ba nga xam ne bu chef quartier bi bindalee ki nekk ki dëkk ci quartier bi aw kayit bu ñëwee da koy yombalal lool ndax li li nga xam ne waroon nañ ko ko laaj mu di ko xam ak ñu war ko boo chef de village si quartier bi bindee kayit boobu dafay mel ni dafay dafay dindi loolu dafay gën yombalal nit ki ci li nga xam ne waroon nañ ko ko laaj mu tontu ci te mën nañ ko ko laaj mu xam ko wax ko mën nañ ko ko laaj mu juum ci walla mu bañ koo xam loolu moo tax ñu impliqué ci délégué de quartier yi ci ak chef de village wax chef de village yi lépp na ngeen ko xam mais bu ko xamee bu ngeen demee ngeen woo seen délégué de quartier leeral leen ko ndax l'ensemble dëkk bi nga xam ne boo ko xoolee commune Touba mi ngi ci cent douze villages la cent douze villages yi boo leen boolee dafa quartier nekk cent quatre-vingt-dix-sept quartiers te sept six mois un an mu quartier yi day évoluer fi mu nekk nii dafa dem na 400 quartier loolu nag soo dëkk bu demee bay toll noonu di màgge noonu loolu moo tax ñu ne nañu ut état centre secondaire yi pour séddale ko xëy na juróom yi ñoo njëkk a génn ñu ngi defaat yeneen démarche pour yeneen gox yi sor yi yooyu aussi mën a am ay centre ngir mu mën a euh, nit ñi mën a am kayit niñ ko war a amee ndax ni ko jamono bi laajee ndax jamono bi moo toll foo xam ne nit ku nekk war naa am kayit te war ngaa am kayit doo ci sonn te jamono bi nga ko war a am war na nga ko war a am ku nekk xam naa li li liñ li ci nit ñi di daj waaye bàyyi nañ xel yépp même daara alxuraan yi xale yi fi nekk di jàng wala école yi ñi nga xam ne ñi nga fi nekk yor elew yi tey am jafe-jafe ci kayit sax ñu ngi leen di woo nañ leen wax directeur école yi ñu ci amul kayit nañ leen ko yombalal ñoom directeur école yi ñu ñu li ànd ko ak parent de élèves yi recensé leen ñu defar kayit yi indi ko ci commune ba ñu defaral leen ko yónni leen nga xam ne bu ñu demee ba war a def seen examen loolu du indi ay gàllankoor ci ñoom ndax bari na fi yoo xam ne ci réew mi donc nit day jàng-jàng ba war a def examen am ay gàllankoor ci ay kayit loolu nag lañ bëgg ci dëkk bii di Touba mu jeex fi bëgg nañ ku juddooti nañ la déclarer wax nañ ko euh, poste de santé yi nga xam ne ak centre de santé yi wax nañ leen ku ci juddoo te nañ nañu liir bi bu juddoo rek na fexe ba am déclaration boo amee déclaration bu ñu tuddee maanaam ñu defal ko euh, euh, kayitu juddu su ko defee dootuñ am jafe-jafe ndax bi ñuy héritier yëf yi dañoo fekk ñu nekk ci déficit bu mag mu am manquement yu bëree bari ndax nit ñi da jamono bi dafa metti te jógee Touba Bogo wàcc sa tool war a xëy dem tool wala tubaabelal wala tindoodi wala feneen maanaam wàcc ko fa ñëw tool ñëw ci mairie bi di rànkaytu judd ak di ko wut ak di paas di dem ak ñëw coono boobu ci nit ñi toll ak fi jamono ji naqaree te waxuma la jot gi waaye paas bi rek yombul te nit ki saa bu xëyee di wutiw kayit lam bu fekkee ne kuy wut waroon a wuti la bis boobu mën na koo indil jafe-jafe du coono boobu nit ñiy dund bàyyi nañ ko xel tenir ci compte moo tax ñu bëgg toujours lu jege askan wi lépp loo xam ne seen yitte la ñu fexe ba mu jege leen ba ñu di ko am te dootuñ ko am te tuñ ci am benn jafe-jafe. ci ci biir loolu aussi centre bu nekk dafa am responsable dafa am officier état civil officier état civil bi moo yilif centre kenn ku ci nekk dañ faa nommé officier nommé fa ñaari agent boole ko ak chef de village bi chef de village bi ak officier état civil bi ak agent yoo fa nekk. ñooy libanti nit ñi di leen ku ñëw ñu renseigné la fexe ba li nga bëgg nga am ko ci jàppandal te doo dem ak ñëw yaakaar naa ne nag loolu suñu ko waxee nit ñi danañ ko dégg chef de quartier danañu sensibiliser nit ñi si chef de village yi danañ sensibiliser chef de quartier yi ba dootu dooñ leen nax naa leen jox ma ñaari junni ma utal kayit jox ma ñetti junni ma utal kayit ak jox ma junni ma utal kayit loolu defe naa ne war na mën a jeex ndax bëgg loolu jeex nit ñi am ko ci jàppandal ndax tembar rek ngay fay tembar bi du ëpp téeméeri dërëm moom lu mu seer seer nga am say kayit sa doom am kayit bu waree jàngi jàngi ëllëg ak si ba du dem doo négliger ba mu waree def examen taxaw dem ñu naa ko boo amul boo amul kayit doo def examen muy yàqam njàngam wala nga di ci sonn wala nga di ci ñàkk xaalis loolu moo tax ñu sens jël nañ officier yi boole nañ leen ak sef de village yi boole leen ak délégué de quartier yi am nañuy enfant foo ci dem danañ la leeral ndax ñi ba ñi xamul dafa bari te kayit moom ñëpp ko war a am ku xam ak ku xamul moo tax te sama baay Moussa Ka dafa ne woon ku xamul laajul ku xam xaw maw am kon nag bu ngeen leen jegee fu ngeen ci jege rek dangeen xam dana leen leeral ba ngeen xam ba ami kayit te du ngeen sonn di sant yi également agent yi ma seqaloon liggéey bi muy agent mairie bi di tàmbalee ci officier état civil yi ba ci agent bi gën a tuuti maa ngi sant bu baax ndax man ak ñoom liggéey nañ liggéey bu yàgg ci mbiru état civil bi sañu ma ci ñoom ñoom ñëpp muy officier yu mag yi agent yi ba ci ci suuf kon monsieur le maire maa ngi lay seedal sama sant ci sa élément yi ndax liggéey bu jagee souvent dañuy tudd kilifa ya mais boo seetloo ñi ci suuf ñoo yenn liggéey bi ñoo ko taaw kon nag fii tey jagaay la boo xam ne nii man personnellement dinaa sant sama liggéey ak ñoom muy waa mairie bu Touba mosquée te nekk ci état civil beneen deuxième deuxième point ma annoncé woon mooy importance bu tey bis bii li tax ma jiital sant yàlla ak sëriñ bi bi ma ci boolee dafa doon benn bis boo xam ne nii dafay def un grand tournant comme ni ko tubaab di waxee euh, lu rëy la ci dund waa Touba. lu rëy rëy la ci askan waa Touba ndax bi ma fiy door a ñëw 2019 ma jël service ak léegi jéego yi nga xam ne nii def nañ ko fi ba tey li am ku fekkewul woon loola mënoo ko xam mais ñun ñu àndoon ci liggéey bi xam nañ ne jéego yi am solo yu rëy la tey benn équipe maire jiite woon ko defar ko waa dëkk bi bi ci njëkk ci ci njariñ li souvent nit ñi dañ koy woyofal mais woyeful muy woyefal poos yi xaalis ñëpp xam nañ ne jamono xaw naa diis fu nekk la nit daan jóge ci ci goxi Tuubaa ñëw paas ci Mbàkke Tuubaa walla sa oto jël sa essance def ñëw mairie yenn fa am fa semaine ñaari semaine parfois nga dugal fa këyit mu def weer ñaari weer ba ñetti weer sa doom war a jàng war a def examen war a tukki bitim réew moodu moodu yi également les émigrés war a yónnee ay këy ñu war ko yeesal loolu lépp daal di yeex di tardé ñu ñu bëri di sikk équipe bi fekk du loolu booba fu ñëpp soxla ah xataay ak jafejafe ak yeexaay mën na fa am ñu bëri également di ŋàññi agent wu mairie bi fekk dañu ñàkk a xam ndax préfet mi ngi may dégg bari ki démb rek yàggul dara état du Sénégal wax na ci organes yi nga xam ne ñoom ñoo yor lu mel noonu ne département de Mbacké bi nga xam ne ni ci la commune de Touba Mosquée nekk tey jii moo nekk première population du Sénégal sur le plan démographique loolu état moo ko wax maanaam ci ci wolof état wu Sénégal moo ne département Mbacké bi nga xam ne fi la Touba nekk romb na ndakaaru di capital bi ci wàllu askan ci wàllu nit ab dëkk nag bu demee ba ëppale capital ba aw askan bu ñu amee benn centre kese ñëpp soxlaa fa dana am jafe-jafe dana am yeexaay dana am tuuti coow kon tey bu ñu demee ba ñu def ay sant secondaire yu yaatu ci gox yoo xam ne ni bokkul ci Touba ku ci nekk foo jógee nga dem ci centre ba la gën a jege bañ a buuxante ci centre bi nga xam moom rek moo fi nekkoon kon loolu benn njariñ bu njëkk la mooy jafe-jafe bi nga xam ne daal na am ci wàllu xaalis ngay paas di jaabante tey nga ñëw ñu ne la kayit bi génnagul suba lay génn nga paas ñett yoon ba ñeenti yoon ba li nga paas ci xaalis sax mooy mujj ëpp li nga waroon fay ci kayit bi kon tey bis ni tey loolu commune Touba Mosquée te monsieur monsieur le maire di seen njiit Abdou Lahad teggil na ko askanu Touba bi ci topp également mooy lenteur bi yeexaay bi examen du xaar bitim réew également les émigrés seen liggéey yi daan liggéey daawul xaar ay këyit loolu également yaakaar naa centre bu ubbee lenteur boobu daan am ak jafe-jafe papier yi dana wàññeeku bi ci ëppaat solo pour man personnellement mooy dafa am benn droit fondamental maanaam benn àq ak yelleef boo xam ne nii charte bi nga xam ne nii moo jëmmal xale tout tànk muy enfance sur le plan international ba ci suñu loi réew mi daf ko fonk muy wax ne xale bu juddoo rek dañ ko war a déclarer mu am këyit Touba da nga fi gis ku juddu ba dem ba màggat amul këyit kon tey bu ñu indee ay centre mu ñëw ba ci seen buntu kër yi jege seen penc yi jege leen droit fondamental boobu non seulement dootuñu ko xañ mag euh, xale yi ku juróo ci doom boo jógee hôpital di nga mën a dem ci centre bi bi la gën a jege déclaré ak ak attestation médical bi la médecin bi jox wala sage-femme waaye mag ñi nga xam ne nii amuñu woon ay këyit ba ci donga daara yi monsieur le maire wax na ko léegi tey ñëpp danañ mën a waaxu ci centre yi leen gën a jege def déclaration kon su ma doon lim njariñu centre yi tey du ma fi jóg beneen point bi ma annoncé woon également muy agent yi nga xam ne nii mair jël na leen parce que loolu également dafa baax ñu leeral ko looy réew mi maire monsieur le maire rek la jox maqaama ak daraja mu mën a nome agent yi nga xam ne nii ñooy dem ci centre secondaire yi loolu moom la ko looy réew mi jox ba mu ko defee ba noppi it man ma am kàddu kon yu may yóbbante wala kàddu soññee ak ñaax yu may def agent yi ndax liggéey bi metti woon na loolu yàgg na waaye bu ñu demee ba jox leen responsabilité bu toll ngeen di defar ay këyit pour askan bi na ngeen xam bu baax li ngeen yor lan la parce que këyitu juddu yi moom mooy tabax doomu aadama bi ci la nit ki amee quarante passeport ay këyitu këram ba muy faatu sax certificat de décès bi ñu koy defal dañ ci sukkandiku ci këyitu juddu ba mu yoroon kon bu nit juddoo ba ni muy faatoo lépp luñ ciy defar ci wàllu këyit ki yor sa responsabilité boobu war na ko xam góor góorgóorlu ci ci farlu li ñuy wax góor góorgóorlu également ci compétence compétence bi également rafet naa ci njort ndax officiers yi ñu nommé yëpp defal nañ leen ay formation yu bari yu yaatu yu yàgg kon yaakaar naa liggéey bi borom yi xam-xam lañ ko dénk bi ma leen di ñaaxaar rek mooy li mooy li tubaab di wax probité probité nag dafa ëmb lu bari mais li ma ci mën a tudd rek mooy wàllu wàllu ger barki dem ba président de la république nanyu na ko annoncé aja góorgóorlu ñun agent yi itu ci centre yi ñu moytu xaalis bi nañu moytu ger bi ndax lu baree bari ci dëkk bi moo doon yàq képp koo agent nga ci centre bi xaalis buñ la mën a jox ak lu mën a doon nala la ko sa liggéey gënal na ko sa njub gënal ko gënal ba loo la ngay def nga bañ ci xool xaalis képp ku am dëgg ñëw ci yow nga defal ko li mu bëgg koo xam ne ay tappale la yor wala ay faux ay fictif ndax yàggoon na Touba am aw këyit nga da ci jàng dem ba ci biir xam ne këyit bi moomoo ko keneen moo ko moomoon lu ñaaw la lu metti la loolu yépp nag dama koy soñaat agent yi ne leen daal am nañ ci yéen yaakaar rafet na njort ci yéen waaye na ngeen farlu ndax yéen a bëgg a xam dëkk bi am na am na ci nit ñoo xam ne nii ba tey faw bu centre yu ubbee danañ jéem a def ay mbir benn rek laa ci jël exemple duma ci sori ndax dañu amaat occasion yaatal ko muy Daaru Xudóos gi ñu nekk tey ma jël exemple am ndax fi lañ nekk Bamba Fall au passage maa ngi koy nuyu di ko gërëm moom mi fi maire teg ma war ko jiite bu ñu gisee ne Bamba dafa farlu ci gaaw a liggéey baral liggéeyam am pastéef danga gis kenn koo xam ne day dem ba ndindi jël fa ay kayitu juddu ñëw dëkkuloo lañ Daaru Xudoos ngir Bamba Fall liggéeyam gaaw na fa wala Moustapha Seck bi nekk bokkatu liggéeyam gaaw na alors que nag maire wax na ko léegi arrêté yi nga xam ne nii ministre bi daf ko jël ba créer centre yi arrêté bu ci nekk village ak quartier yi ci aju dañ ko leeral kon ngir yàlla na ngeen góor yéen agent yi ba am benn rigueur ci contrôle bu mel noonu képp ku ngeen di bind ci centre bi ngeen nekk na leen wóor na ci gox boobu la juddoo fa la bokk buñ ko deful da nga gis ku juddoo bokkatu ñëw déclaré daal xudóos ku juddoo daal xudóos dem ndindi te loolu dafay chamboulé dafay yàq dafay jaxase liñ tabaxoon kon nag liggéey bu diis la ci agent yi bu metti la man xam naa bu baax li leen di xaar kon na ngeen ko mesurer ci dayo bi mu amee xam ne du ay nelaw du ay woyofal du ak noos responsabilité bu lourde la bu metti bu metti boo xam ne nii yàlla na jàll sàmm jàpp la leen ci ba benn dog du ci am man également li may mujjee wax agent yi ni ma daan liggéey ngeen nag depuis cinq ans yi ma fi nekk mooy sama téléphone yaakaar na agent yëpp yor nañ ko officier yëpp yor nañ ko képp koo xam ne nii tàmbali nga sa centre di liggéey gis kaa boo xam ne daf la jaaxal mosoo ko gis wala am nga ci ñaaw njort jëlal téléphone bi nga woo ma parce que yàgg ngeen ko def ak man lu tey laaj ma lii lan la ci yoon wax ak nuñ koy defee noonu lañ mës a liggéeyee tey it maa ngi koy yeesalaat kanamu mbooloo mi képp koo xam ne sa centre am nga jafe-jafe ci wàllu état civil bi ubbil nañ la suñu téléphone ak suñu xel ñuy échanger di ci waxtaan bu ko defee réeré du am jafe-jafe du am. te liggéey bu rafet bi askan bi xaar ci ñun incha allahu rabbi dana am njariñu centre d'état civil njariñu état civil mun naa kaa tudde noonu wala njariñu acte d'état civil acte d'état civil nag ci la nguur mën a sukkandiku pour mën a natt li ñuy tuddee la planification de la santé publique ci la nguur mën a sukkandiku

loolu nag amal na njariñ santé parce que bu ñu def ay politique de vaccination bu ñu def ay politique de prévention ci loolu la ñuy sukkee pour élaborer politique yooyu beneen bi mooy le développement sociale bu ñu demee dem ba jàpp ni fii war na am hôpital wala fii war na mën a am poste de santé wala fii war na mën a am centre de santé wala fii war na mën a am case de santé wala école wala poste de gendarmerie ci enquête yooyu maanaam acte d'état civil dinañ ci juqi pour mën a jagleel dëkk boobu centre de santé wala poste de santé wala case de santé wala lu mënti doon ci wàllu développement social loolu day dem ba bu fekkee GIE ñëw nañ wala ay association wala ay programme d'appui yoo xam ne day jëm ci askan wi jëm ci ndaw ñi jëm ci personne âgée agi, yi ci loolu la état mën a sukkandiku pour mën a politique boobu ba may daaneele rek mooy édifice public nag buñ ko defaree la cay jaaju mooy ñu sàmm ko lu am solo ñu noonu sànq président wax na ko nan ko sàmm nan ko ñoŋal te man damay faral di wax nan, acte d'état civil képp ku ko xam maanaam xal la war a doon say loxo bala nga koy laal war nga mën xalaat xalaataat bu baax avant nga ci jël décision loo xam ni nii mooy na identité nit ki li li nit ki ci ndey ak ci baay ci âge ba mu am fa mu juddoo maanaam ci askan woowu mbokk loolu dafa jaadu bala nga ca jël ay pexe nga càmbar ko xalaat ko bu baax acte d'état civil dem na ba avant nga koy rédiger nga yenn yi am na yoo xam ne ni jakoy jar nga def maanaam des enquêtes administratives xëy na police dirigé ko wala gendarmerie diriger ko wala maanaam procureur ordonné ko pour ñu mën a dresser ak d'état civil kon nga xam ni nii lu mat a maytu la lu mat a sàmm la lu mat a sóoraale la donc ñi ngi ñaan yàlla ci kàttanam ak ci mbaaxam ak ci mbaaxu xaadim rasool lii Abdou Lahad Ka def mu nekk loo xam ne nii ndam la ci Touba mu nekk loo xam ne nii njariñ la nekk ci Touba mu nekk loo xam ne nii te du lor mukk askanu Touba maa ngi wàcce foofu samay kàddu di leen gërëm asalaamualeykum